aywa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ñu ngi leen ay nuyu kenn ku nekk turam ak santam di leen ñaanal yàlla bu baax di leen sakku ñaan di leen yëgal ñu ngi dégmal ci ziyaara bu mag ci góoru yàlla bu mag euh, muqaddamu cheikh na ahmad hamahullah haydara bu mag boobu euh, nitu yàlla bu mot boobu muhammad ibnu abdullahi gidaado koytaate mu dekkoon ka haydi Euh, ñu fas koo yéene nag defal ko ziaram ziara bi jàpp nañ date bi muy le 18 mai 2024 incha allah taala daayira yi nga xam ne ñoo war a jogee dakaar fii ñu ngi départ jeudi le 16 mai la ñuy départ Dakar ala kulli xaal ci fajar la ñuy départ Dakar asalem 5 heures du matin euh, Kër Mbay Fall 6 heures du matin. voilà képp koo xam ne nag bëgg ngaa dem danañ joxe numéro téléphone nduur nga jokkoo ak ñoom ñu teel a bind sa tur balaa oto yi fees. ku bugg xam aussi cotisation yi yëpp ak nu mu demee nga woote sunu numéro wala nga woote numéro Boubacar Ndour wala taalibe bi la gën a jege ci sa gox te mu yore liste bi nga woote ci kooku mu leeral la képp kuy dem na nga teel a bind sa tur bala liste yi fees incha allah taala bu ñu déparé fii le 16 muy jeudi ak foofu guddi vendredi le 17 samedi le 18 mooy ziara bi dimanche le 19 incha allah taala ñu daal di ñibbi kenn ku nekk dem fi nga dëkk. lii la ñu woon pour ñu jotale ko mbokku taalibe mbokku jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. yaa man laysa hijaabuhu illa nuur wala xafaahu illa siddatu zuhur asaluka bika wa anta fi martabatika an kulli taqyidin itfa'al fi ma tashaw kama sa'alaka abul abbas ahmad tijan radiyallahu taala anhu وكما سألك شيخنا أحمد رحمه الله وكما سألك محمد بن سيره من الله شريف في دار الرضا أن تغفر